713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te buñ ñu nee góor ngóoraa tax. rafetlu ànd bi ak yéen ci Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci biir la jotaayu xibaar ne suuti ñu faram fàcce. dañu koy door rek ndajeem commité national de gestion des épidémies ñoo doon daje tey fa nga xam ne moo di ministère de la santé et de l'action sociale ci teewaayu ki ñu ko dénk di Abdoulaye Diouf Sarr la ñu doon waxtaanee ginnaaw bu ñu defi ab analyse ci feebar bi nga xam ne moo di Covid 19 ñu jàpp ne. Eh, jamono ji mu ngi yokku ci réewum Sénégal ba mu ca noppi Abdoulaye Diouf sax daal dinay daje ak presse bi ngir ñu wax nag léegi di eh, feebar bi ak tolluwaayam ci lépp loo xam ne ñeel na ay jumtukaay ci wàllum protocole sanitaire ngir nag ñu dal di farataalaat li nga xam ne moo di takkum masque yi dandante bi eh, itam di jëfandikoo li nga xam ne moo di ay gel ak népp loo xam ne mën nañu koo xeexe feebar bi nga xam ne moom moo di Covid 19 ngir mu bañ a law ci biir réew mi li ko mooy dinañu delluwaat buyum ca booy booy ba mu di couvre Lirou Diane ak ki nga xam ne moo di Sofia seen émission ba ñu doon def ci Diassigui gi TV mu dal di indi coow lu bari ci biir réew mi ñenn ñi sax di xas ñi nga xam ne ñoo di animatrice yi ak journaliste yi dem nañ bay wax ne métier mi léegi dañu ko bëgg a jàppee di prostitution ba tax na Lirou Diane dal di génnaat ca Lutte TV indi ci ay leeral ginnaaw bu ñu doon wax ne émission boobu les mise en scène la dañu ko préparé Lirou Diane na kenn préparé ko mook mu ñu yenn yi te itam jot na mu dal di génn andi ay leeral dem na ba waat ko ci sëriñam ba ci yaayam ji nga xam ne moo ko sukk jur liiru jaan dem na ba génne fa ay rongañ ngir nag wax ne jigéen la moo tax mu koy suturaal waaye tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati teg ko ci am ndoddam ci émission boobulee dara mu ci ñu dem ci région bu cees Thiès quartier kër sàmba Gueye bi nekk ci commune Fandène askano fa yeewoo ñu ngi ci njàqare ginnaaw bu ñu jàppee ne usine ba fa nekk di liggéey meewu jaboot bi daf leen a sonal revendiquer eh, boobu la usine waaye ba léegi gisaguñu ci ay safara ñu ngi sàkku ñu daal di leen fay jëleel bobu ca boobu la usine ndax ay jafe-jafe la leen di indil eh, ci wàllum gu yaram ñu àddu wax ci leneen lu ñeel askan wi tolluwaayu réew mi tax na waa suñu Sunugal 24 dal di def démb ab micro trottoir ca biir Ndakaaru ngir nag xam tolluwaayu réew mi ak lan moo ci gis-gisu askan wi ca ñu ñu jot a dekk seen ay micro lan moo leen gën a metti wala lan moo leen gën a neex ci biir réew mi bu la ci ëpp ca li euh, nit ñi ñaxtu mu di ñàkkum xëy mi ci biir réew mi ndaw ñi nekk ci difficulté yu waral ñu jël gaal yi di dem ca bitim réew li nga xam ne moom la ñu lancé comme message ngir ñu jàppale leen ci bokk na ci xëyum ndaw ñi ci biir réew mi jigéen ñi itam ngir ñu gëstu leen utal leen ay financement yu ñu jàpp ngir dimbali njaboot bi ñu àddu wax ci leneen beneen taxaw seetlu boo xam ne askat wi moo ko def ci faatoog Pape Bouba Diop ba mu faatoo depuis dimanche ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon douzième gaynde ci jamonoy 2002 dal di nañuy génn nag naqarlu ko waaye daf ci am koo xam ne moom la ñu seetlu kenn gisagu ko ba léegi mu dal di génn def ab témoignage am wala mu rendre hommage ki nga xam ne moom moo di Pape Bouba Diop mu di Alioune Cissé mi nga xam ne moo nekkoon capitaine ca jamonoy 2002 ba tey nit ñi kenn gisagu ko ñuy laajte ana si Cissé ci lan la nekk ba génnul rendre omage ki nga xam ne moom moo di euh, Pape Bouba Diop. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu dem ca Fatick wax ci génnuk àdduna ak maire de la commune de Thiaré ñaal gi di euh, soni gi ñaan dal dinay génn àdduna ginnaaw bu ko feebar tëralee woon ci talaata ji mu di feebar bu gàtt boo xam ne moo ko mujjee yóbbu euh, ginnaaw bu mu feebaree feebar boobu nag dal dinañuy sukkandiku ci kàddooy mbokkam doonul woon feebar boo xam ne moo ko tëral ndax ci diirub ñaari fan rek la ko feebar bi tëral ci diggante talaata ak àllarba bi nga xam ne moom la génnee àdduna ñu koy jàll képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi rawatina ay mbokkam accident yi ci biir réew mi mi ngi wéy di am ak bilan bi nga xam ne moom la ñu ci def ci biir semaine bi ñu dem ca Sédhiou ab camion moo fa dal di déraper perte contrôle am dal di nag mbëkk ak garab ba benn nit ñàkk ci bakkanam ginnaaw bu mu yebee woon ay élèves yi doon dem école lu tolloo fukki nit ak juróom yoo xam ne da leen doon yóbbaale eh, chauffeur ba di wuyu téléphone ba dal di mbëkk garab ga am xale boo xam ne mi ngi doon def cinquième moo ci ñàkk bakkanam ñi ngi ci ay cas yu grave ñeneen ñi ca des dañoo am ay blessé accident boobu nag mi ngi am tey ci suba ci 8 heures du matin Fatuk Pape Bouba Diop fas yéene nañ ko andi ci réewum Sénégal li jàpp tey ci guddi ba suba lañ koy jébbal boromam tàggatoo ba nga xam ne tàgganoo na ko ak ak njabootam ca France ambassadeur bi teewal Sénégal ca France dal di eh, nafay teew mu di El Hadji Maguette Seye dal di nay def ab réaction nag ci li nga xam ne moo di génnuk àdduna ak Pape Bouba Diop mettitlu na ko waaye itam dal di wax ne ab monument moo dal di daanu ci wàllum football rawatina Sénégal gi nga xam ne doon nañ ko bégee ci teewaayu jabar ja doom ya def ay témoignage ca la nga xam ne moom la ñu sekkoon ak Pape Bouba Diop jabar ja wax na ba rongoñam dal nam waaye taawam ba itam dal dinay génn def ay témoignage ci papaam mu mel ni kenn ku nekk ci ñoom Fatou Pape Bouba Diop am na lu mu def ci yow mbokk yi xarit ñu doon taxirlu ci Sunugal 24 fii la ñuy yëkkatee bii lay jotaayu xibaar ñaan ngeen woyal suñuy programme di leen ñaanal jàmm jox leen dig daje ëllëg incha allah